bismillahi irrahmani irrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxna wa asbax almulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inna nasaluka xayra ma fi hada al yowmi wa xayra ma baad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 jaajëfal alxaaji mbàkk si la mu nekkoon jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak projet def dara démb bi ñëkkati jataay bi ci débat bi nga xam ne moo am ci penc mi walla match de boxe bi am ci penc mi te ñu ko séq di ñu bari lislaam bokk ca li tax muy baj-baji jamono yii nag ak yu ko jiitu ak yu ñëw mooy boxeur yi dañuy boole kenn ak kenn kee du mu ja ñu boole kenn ak kenn mu doo morom ja ba lislaam ñëw taxaw moo tax fi ne tabaarakallahu baj baj jeeg yooyu walla nga jële ko ci anglu débat bi nga xam ne moo xew ci pénc mi mooy lu fi jële ak ñàkk débat boo xam ne dañu ne lu fiy jël ak ñàkk waaw euh, muxaddisuna yi lil faqr jël nañu kàddu ni ñu ko wax ci bind bi nu weesu euh, aljabriyoon jël nañu kàddu duaatul ihsan al fardi yi jël nañu kàddu rasu maliyuuna jël nañu kàddu waaw al ishtiraakiyuuna jël nañu kàddu sallallahu alayhi wa sallam jox ko kàddu alaaji dooro si la bi ñu joxee sallallahu alayhi wa sallam kàddu bi muy latte ñëw ci li proposition ndax ñee ku ci nekk am na loo wax ne jàpp ne loola mooy fi jëlee ñàkk moom bi mu ñëwee dafa jekku débat maa ngi nag ci programme mu politiciens yi nga xam ne ñoo wax ne danañ fi jëlee nangam ak nangam te ma limoon ko ci xiif rafle mar tëdd biti bi mu ñëwee lim njëkk a def mooy mu xaddisuun yi te mooy ñi nga xam ne ñooy wax ne ñàkk lu baax la ñoom la njëkk a lijjanti seeni mbir ne bu ñàkk baaxoon borom bi du wax comme jox ak am jox naa la xéewal waaw ko defee tomb bi ñu yëkkatoon jataay bi démb nag mooy ak ñàkk danger la ci aqida waaw ak ñàkk danger la ci aqida ak nit ndax gëm-gëmu nit bu fa am am nekkee toog mooy yomb nit ku amut rawatina ku am ku amut te muñut waaw mu nga bu fekkee am na ku ñàkk te muñut daanaka lu yéema lay doon kam aalimin aalimin ayat madahibuhu wa jahilin jahilin talqaahu marzuqa hada alladi taraka al albaabu jaa'iratan wa sayyara al aalimu nihriiru sindiqa muy sunu baytu démb sunu ñaari bayti démb yi te taaxuraankat wax ko ca taaxuraankati arab yu jëkk ya mu ngoog eh, mbir mi loolu borom wala bu loolu taaxuraankat boobu wax mu di nit dana ñàkk nit dana xam ba noppi ñàkk ñu classé ko fu ñu ko classé wut nit dana réer ba noppi am nekk fu mu nekkut nit dana am xam-xam ba noppi ñàkk nit dana réer ba noppi am waaw fa isa lam fa idan lam yuaddi l amru ila mithli hada dalal baid li nga xam ne moo di ñàkk dem na fu gën a kowe foofu waaye beneen taaxuraankat aw ko ne ko arisqu kal xayfi bayna naasi munqasimun hada xariqun wa hada yashtahi l matara nee na ak ñàkk ci penc mi moo ko tawayam yàlla koy séddale diggante nit ñi këlee ngay lab këlee ngay baaw naan waaw nee fi fi nit ki labe ci ndox am na koo xam ne ki ma ngay baaw naan arisqu kal xayfi bayna naasi munqasimun hada xariqun wa hada yastahil matara waaw kee ngay kee a ngay eh, lab kee ngay baaw naan yasal xawiyu wala falaa yanaalu bi bi xaybihi bi saayihi ngeen baal ma yasal saayiyu yasal xawiyu falaa yanaalu bi saayihi xadan wa yaxsa ajisun wa mahiinu nee na léeg-léeg gis ko am doole am kàttan di liggéey waaye du am ca liggéeyam ba benn cër wala du ci am teraanga ju bari nga gis koo xam ne kii ku lott la ku lott la waaw am solo lool walla ñàkk solo waaye lu ne mu am ko penc mi soo demee noonu la gis koo xam ne kii euh, ab am amam teggiwul ci xam-xamam waaye yooyu tëb yépp mooy li nga xam ne mooy jàddal pas-pasu nit jàddal pas-pasu nit waaw mbokk yi kon nun ñépp noo gis ne sallallahu alayhi wa ci débat bi angle bi mu ko jëlee am na solo moo dina nan ñépp nañ xam ne ak ñàkk baaxul ci as gor loolooy addis bi as ñàkk ak ñàkk baaxul ci as gor daana xëy di ci muslu allahumma inni a'udhu bika min al faqr waaw yàlla bu ñu faqr yàlla bu ngeen faqr al faqr nag mooy di ñàkk ak ñàkk nag mooy ko xam ne kii munta assuré añ reer ndékki bu ñaar bi alayhi salaam jël kàddu gi ne leen al faqru xatarun ala al wa suluk mu leen yee ba tey mi ngi ci débat ñi wax ne ak ñàkk lu baax na lu baax la ñooñu lay tontu balaa muy jël euh, balaa muy continuer waaw ndax débat bi am na solo lool al faqru xatarun al axlaaqi wa ak ñàkk mën naa yàq jikko ak ñàkk mën naa yàq jikko waaw ndax li mu yàq jikko moo di ak ñàkk dañ koy walla walla aj ñàkk dañ koy xañ yu bari ay mbokkam xañ ko ko penc mi xañ ko ko bu ko penc mi xañee ay mbokkam xañ ko ko mën naa yóbbu ci moom mu dem ci jikkoom loo xam ne ay bokkam xamewuñ ko ko woon ci jóge gi mu jóge ci jikko yu tedd yam nekkoon te dem ci yeneen jikko waaw moo tax boroom xam-xam yi daan wax ne e, kàddug biir kàddug biir moo ëpp doole foofu kàddug làmmiñ kàddug biir maanaam biir bu xiif li muy sant boromam mu ëpp foofu aw làmmiñ li muy sant boromam euh, mën naa yóbbu it nit moom ak ñakk ci muy sikki sàkk ci boppam di sikki sàkka ci bokkam di sikki sàkk ci ñi ko wër ndax mujj mu tàmbali di xas ñi am di jëw ñi am di yàq deru ñi am waaw mu ngoog sallallahu alayhi wa sallam di wax li nga xam ne moo di ñàkk ak ni mën a walbatee jikkoy nit mu ne xusul ata maadaama ata fa isa saa riswa ala diini fala taaxusuuhu walastum bi taarikihi tamnaukum alxaaja walfaqr aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam nee na alayhi salaatu wasalaam ku leen jox jël leen li feeg joxe la ku leen jox jël leen li feeg ak joxe la waaye nangeen xàmmee jox-jox bi ak corruption waaw ku leen jox jël leen li feeg jox-jox la ku leen àddiyaal jël leen li feeg àddiye la ku leen jox kado jël leen li feeg kado la waaye na ngeen xàmmee kado ak riswa ci diine ku leen jox ci riswa te mooy jox leen ci bëgg leen a korom fala taaxuzuuhu bu leen ko jël bu ngeen xiifee ngeen mare bu ngeen rafle bu ngeen amul dëkkuwaay bu mu tax mukk ngeen jël ku leen di koromp waaw mu ngook alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax kon ci addis boobu loo xam ne mën naa yàq jikko eh, xam nga bor moom tamit ak ñàkk da koy waral borom bor beeg kileb ñoom ñépp lu metti la ci ñoom inna rajula isa xarima stadaana waaw isa isa isa isa xarima stadaana noonu la addis ba wax wa fa kadaba wa waada fa axlafa mu ne léeg-léeg nit ñàkk isa xarima xaddasa fa kadaba wa waada fa axlafa xarima mooy istadaana dana léeg-léeg nit ñàkk mu yóbbu ko ci leb leb ga yóbbu ko ci waxtaane fen leb ga ak bor yóbbu ko ci joxe rendez-vous wuute ko te kiy waxtaan fen jikkoom daa yàqu ki diggee fausse rendez-vous ba jikkoom daa yàqu waaw te li ko yàq mooy ñàkk gi ko ji gi ko dal ba tax muy leb waaw ndax léeg-léeg nit leb wax ne sàngam lay fay waxtu wa jot fayut waaw waxtu wa jot fëyut aka bari aka bari ci penc mi leb waxtu wa jot fëyoo léeg mu dal nit sax ba tëdd nekkub néew te yorey bor waaw lu am solo la ci wàllu ak ñàkk nim mele nim mel ci jikko ak nim ko mën a yàq yàlla bu ñàkk yàlla bu ngeen ñàkk mu ngoog moo tax e, nit mën naa nekk ci barab waxtaan fa waxtaan woo xam ne e, yéeme na dañuy wax ci nettali jenn waaye daa jóg guddi yorob sarax waaw jenn waaye daa jóg guddi yorub sarax bëgg koo saraxe te kenn du ko yëg ku dul loxum ndeyjooram ak boroomam eh, bi mu génnee di joxe sarax bi ndax kum njëkk jot jox ko ko këm njëkk jot ab sàcc la ab sàcc la waaw mu jox ko seize million maanaam sarax bi mu génne sarax ba mat na seize million mu génn dajee ko sàcc mu jox ko ko xamul nag ni ab sàcc la ñu tegee semaine baa lu ko jege mu génn waat beneen sarax sarax bi tey dajeeg jigéen ju ne ci mbedd mi di jaay boppam moom la jox sarax ba seize millions nit ñi di waxtaane waa jeeg saraxam yi nit ñi di waxtaane waa jeeg saraxam yi waaye ba ñuy waxtaane jigéen jëm sarax waaw moom góor jëm sarax waaw xanaa xamul lii xamul laa waaye ba mu tëddee ci ay nelawam mu gis ne dañ ne ko ki nga njëkk a sarax seize millions te mu dib sàcc kere ba mu xëyee la bàyyi sàcc jël seize million yooyu di ca kopp-koppal ba am ca loo xam ne lii téye na loxoom jigéen ja woon ca mbedd ma it ba mu taseeg moom far mu jël sarax ba keroog la bàyyi moom tam toog këram waaye li ngay dégg foofu sàcc bi la ko daan tax a jóg jikko yaa baaxutoon muy sàcc jigéen ji kadalika ndekete kon ñàkk yóbbu na kee muy jël yëfi jàmbur yóbbu na kii muy def lu jaaduwut loolu nag ci pénc bi ci société bi ci bokk gi ceetaanante moomu mën naa jur lim jural ñaar ñii nit ko am lu bari ba ëppale kii di sarax ay seize millions am na ñu ko ëppale di denc rek li ngay denc xatta zutumul maxaabir rek lay am alhaakumu takaathur xatta zutumul maxaabir bari na koy denc lu ay bokkam soxla bari na koy denc lu jabaram soxna soxla bër na koy denc lu jëkkëram soxla denc rek waaw denc rek moo tax lu am solo la ci penc mi waaye ñu bàyyi xel ci ne yonent bi moo jël kàddu gi nee na penc mi na ngeen yëg ne ak ñàkk danger la ci jikko danger la ci comportement mën naa yóbbees gor mu def lu mu def moom ñàkk moom waaw tagg ku mu tagg xas ku mu war xas jëm jëw lu ne mu dugg ca lu tax parce que ay jikkoo ma yàqu lu ko yàq ak ñàkk alayhi salaatu salaam moom ci noppee mu ne ba tey mi ngi ci taq euh, taqdis yoon yi bu fekkee nu leen ko waxee nga xam ne ñoom ñooy wax ne ak ñàkk baax na mim ñoom lay tontu na ak ñàkk baaxut mu indi beneen tomb al faqr xatarun alal fikril insaani al al faqru xatarun alal fikril insaani euh, kon li ñu tuddee al fikr muy mbirum xalaat birum xalaat day gën a fës ci politiciens yi da nga gis koo xam ne kii ci xalaatam ci programme am ci tëralinam looloo ko may mu samp benn parti tuddee parti bi aw tur xam nga sunum réew bu ñu amee parti léegi dañ cay rax mbirum mbirum baatu wolof <laughs> ba des suñ parti yu njëkk ya parti léegi moom eh, tabarkalla coalition yi dégg ngeen ne day am turi suñu pénc mi ñee dañoo tudde seen bopp eh, bennoo bokk yaakaar ñee ne bennoo suqali Sénégal ñii ne bennoo yewi askan wi ñii ne bennoo nangam ñii ne bennoo nangam waaw tabarkalla mu nga ngoog soxna am sa saw sidibee mu ne kaar leneen <laughs> waaw kenn ku ci nekk rek am na noo ko defee waaye fikri boobu nga xam ne xalaat bi moom li doomu aadama am léeg-léeg ak ñàkk jële ko ci partem bi yóbbu ko ci partie bu mu contrôle waaw nga xam ne idéologie bi nga nekk yow ak bi kee nekkoon du benn boo bàyyee sa bos dem ci bosam rek yaa quelque soos alfaqr day fekk nit léeg-léeg mu am principe yu baax mu am xalaat yu baax waaye mu jékki-jékki teg lépp ci suuf daal di fekki gaa yi waaw mas naa dégg benn waykat bu ñu wax usaa waaw na yàlla yokk wér waaw na yàlla yokk wér ñaar lañ ñu daan ñëw sama kër ndeysaan waaw moom moomu wala boog ay gaay <laughs> moom moomu ak kañ daan wax Moussa Moussa Ngom waaw te dëkkoon nekkoon Gàmbi walla dëkk Gàmbi Gàmbien la woon borom ñaari kawas yi nuróowu di woon ak dàll yi di sànn waaye usa jékki benn bi rek ne bàyyi naa musique waaw waaw aw way la mu waaye nu xëy séen ko ca podium ya mooy li muy tekki mooy la ma nekkoon loola mooy musique lii ma nekk léegi mooy pëccëxoo kon xalaat bi mooy leey ma nekkoon muy pëccëx muy misik te ñëpp bàyyi ko di pëccëxoo soo ko bàyyiwut ñëw ci pëccëxoo bi doo dem waaw pénc mi it ki gëm ne lii mu gëm mooy doxal pénc mi mu jékki-jékki jóge ca xalaat booba ndax penc mi daa am socialiste am ay communiste am ay libéral am ay libéral léegi nag xam naa beneen bi nag al islamiste ñu ne ko ah, déet yow doo ci bokk yow bàyyil rek nun rek nu dem waaye ki am xalaatub nii la réew mi war a doxe ba am ab parti jékki-jékki ne ko fa ñukk ñu seen ko feneen ak ñàkk dana koy faral di def ak ñàkk dana koy faral di def hmm? ndax daruriyaatul xa wala daruraatul xayaati yi nga xam ne mooy nécessité dund hmm? léeg-léeg nit ñàkk ko pour moom ñàkk ko pour famille bi ñàkk ko pour doomam léegi kooku naka lay xalaate xalaat yoo xam ne mën naa doxalum pénc ay xalaatam yépp boo moytul mooy xalaati nan lay def ba am dépense su ëllëg nangam nangam nangam moo tax jàngalekat yi fi ne jàngalekat yi dañ leen di bàyyi rek ñu naan daxala dugg na xar jóge na ñu naan leen est waxtaan wi neex na waaw est-ce que waxtaan wi neex na waaye dégg ci ko takk téeméeri million jox ko Modou Fall yal na ko yàlla yokk wér <laughs> wala takk juróomi téeméeri million hmm? jox ko Oustaz Mor Thiam waaw ko sa waxtaani sa waxtaani fajar yi waaw sa waxtaani sab ganaar yi waaw su ko defee xalaat yi mu doon xalaat dana mën a gën a tënku ci su fekkoon bi muy xëy kër ga lam yoroon la fa bàyyi muy dépense mu ngoog waaw ko defee kon loolu day am solo lool ci pénc mi waaye yonent bi nee na al faqru xatarun alal fikril insaan yi ak ñàkk danger la ci xalaat ndax mën naa rey xalaat yoo xam ne bu judd woon bu teg woon ci pénc mi ñépp mën koo jëriñoo rawatina boroom xalaat bi ci boppam mbokk yi bind bi jeexut débat bi daal mooy gaa yi dañu fee bëgg jële ak ñàkk débat bi tàmbali na gaa yi jël nañ kàddu yonent bi alayhi salaatu salaam moo yor kàddu gi teg leen seen baaram foofu ñaan suñu borom may dund ba ëllëg te weesu ko ñaan ko mu def jàmm ci réew mi réew yi ko suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne taxaw yor seen i këyit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar yi ci tubaab firiñ fàncal na ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo yi Café Teranga ak yàlla yàlla defar seen mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu